jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal damay faral di wax naan góor yàlla boo gis am na ruq wu muy dugg bu amee aajo bu ko jaaxal waaye dama naan jëmm ji sax amu ko ndax aajo lu mu diis diis du ko jaaxal li ko waral lenn la mooy xam-xam wu bari waaye xam yoon wu muy jaar ngir mën a ñaanal jaam bi mbokki internet yi jëmm ji ñu leen indil di alxaaji Mokhtar Sylla boroom xam-xam la réew mi doo kenn dootu ko natable waaye nitu yàlla la kenn dootu ko natable li waral nag ñun ñëw fii dañu fee yabalaat defaloon nañ ko émission bu ngeen fàttalikoo lu xaw a ci ay jamono yu yàgg waaye ñu mu jëflanteloon ñu ci baree ñu woo nañu faw ngeen génnewaat njariñ li ne ci moom ndax ñu mëri ñu bari mën cee jariñu xaaj Moxtaar Sylla mi ñu janool tey daje nañu ku ne ci biir Allô Sénégal waaye jëmm ji raar na ngeen gis ku mel ni moom ci xam-xam bu bari ci ragal yàlla waaye ci kawe lool wax ji nag bari na ñi ngi naan dafa booleek xam-xam bu ñuul moo tax mbir yi gaaw ñii ñi ngi naan dafa am jinne moo tax mu gaaw waaye dama naan tung ne du teew ñuy nataal tey dinañ waxtaan ak sëriñ bi ci li mu gis ci tolluwaayu jamono ndax bu ngeen fàttalikoo lim fi yàgg a wax yépp teg nañ ci suñu bët te tey dañoo jëm ci élection 2024 réew mi soxla mu génn wax Amadou Ba biñ ko tànnee ba léegi sëñ bi génnul te ñëpp nag ñi ngi doon xaar mu génn wax ci loolu ci Benno Bokk Yaakaar seen candidat bi seen tasaaroo bi am biir Benno ba ci usman Sonko mi nga xamante ni boobu ba léegi génnul te sëñ bi njëkkoon a annoncé ni usman Sonko ndëgg sërëxin koy tegal boo moytul dana ca dana ca dugg sëriñ bi gis nañu face faas bi am ci Ama Balde ak Modou te laataa sëñ bee fatu waxoon na ni làmb ji mi ngi ci loxoom te fii rek neexu ko làmb ji duñ ko tëgg ñu gis ni làmb ji tëggaat nañ ko njott nañ ni ñaari mbër yi am na ku jaar suuf ñëw ci moom lépp nag fii lay leere dañ koy bàyyi moom sëriñ alxaaji moxtaar silla suñu sëriñ bi boroom xam-xam bi nitu yàlla mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayuha almuslimuuna walmuslimaati jamian bismillah sëñ bi coow li dafa tàmbalee bari ñu gis ni say vidéo yiy fuité dangay faj nit mu am rab ñu indi ko fii nga tudd ay baat mu tàmbalee mel ni lu lay wax di jëfaru nit am beneen feebar nga ta ñu yaakaar ni leneen la nga ta nga jël li ne ci moom muy jëfaru di wax la fa ko feebar bi dalee lépp ñii naan da ngaa amee jinne ñii naan da ngaa amee rawxaan ñii naan danga am yooyu utiliser yoo xamante ni yu kenn xamul tey nag dama ne tungu ne du teew ñuy nataal faj bu efficace bi ngay def ba coow li jug ci Sénégal lu mu doon bi yaa hin wa yaa yuuhin wa hmm. yaa xayra baasixin hmm. wa yaa man lanal arsaaqu min juudihi namat hmm. suñu borom bind na ay malayka yoo xam ne seen xefu bët képp mën nañ cee téye asamaan ak suuf te du yëngu sa borom moom mu ruuxuk doomu aadama denc na ci lu ëpp la la nekk ca malayka yooyee bu fekkee nit xam na boppam mhm. bu ma la waxee ne la sekkare waaw ba yonent yàlla xiisaa yoroon mhm. ba tax ma wax wa ubri ul akmaha mhm. wal abrasa wa uxyil mawta bi isnillaahi damay faj tawati ngaana ak siti di dekkal ku dee mayuk sama borom googee waaw jugu fi ba tey Sénégal waaw réew mu naqaree waxee la Mm-hmm. waaye maa ngi giñ ci jëmmi sama borom mi mm-hmm. sama borom yemalewu ma fenn ci boppam mais fétiche gi ñu lay jiñ dañ naan aajo bu la xaw a jaaxal sax boo ko dugalee ci fétiche yi mu est-ce mën nga ñëw confirmer fétiche yi parce que ñun tamit bi ñu ñëwee am na ñu fi fekk yoo xamante ni bëggoon mu génn xam-xam xaw ma da cee bokkut ah. daa am ñoo xam ne ñaan nañ ba sonn waaw jaar nañoo ñoom ci lii ci alxuraan ba sonn lañ bëgg mënuñu ko am mm-hmm. bu dee xaalis nañ bëgg nañ ñëw ma jox leen ko bu gaaw. fiñ la min man am naa xaalis wala aw ma xaalis man. fiñ la fekk rek duñ fi fekk cuune ndax mi ngi la fekk sa résidence. damaa xarut lenn ci jëmmi doomu aadama bëgg yaatal xam-xam ak li jëm Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ne ku nay ci xam-xamam. waaw balaa dee danañ ko xisaab looloo ma tax a génn. dëgg la. bari na gone yu génn ci internet bi di wax. Mhm. la nekk ci ñoom man maa ko ci def. bari na am matu toog seede ko. bari nañ waaw ñoo xam ne wax nañ ko am na ñoo xam ne yow mii dégg nga leen micro waaw suñu aloo ah, ci allo Sénégal mhm. ñu seedeel la ko waaw noonu la amee ñoo xam ne noppeeguma ci ñoom seenum njàng përeegut ñu bëggu xaalis génn dem dugg ci ci yëf yi maara di taal dina xaate duma ci tudd turu kenn damaa génn ci xat-xati màggal gi di jëm ci gàmm gi kalaama yi bari na mhm. bu màggal gi jàllee billaahi li si laa ilaha illa ci baatin lay jëflanteeg ñoom ñëpp duma leen bi nga yegg bi nga yegg léegi yaa ngi fekk may daas mm-hmm. sama sama ali way xànjar waaw te sama rëyinu xaalibiin googu waaw képp ku ma ci dugal mm-hmm. loolu danañ ci waxaat sëñ bi ma yaakaar ne aliwu xànjar gi ngir nopp kase la ndax nopp jamono ji moom taxaloon nañ la ci médaille lu yàggul dara dama ciy nopp dama ci tàggat dama ci duma ci xànjar gi ci xànjar gi mbirum xaalis ñi ko bëgg waaw ñu leen di yebal euh, beneek Casamance ak bund nangam mm-hmm. dañ leen wax ne nañ ñëw fii nañ dikk fii duñ leen laaj bakkanu doomu aadama. déedéet. duñ leen laaj ci ab cër ci ñoom. mais mais sëñ bi ci wàllu am am googu noonu kàkkatar bi. am na kooko mës a jëflanteel ko ñu boole woon ak yow. nañu xam-xam dong ngeen di wër. ki ko ëpp ci Sénégal laa leen di yabal. ndax ba may jàppanteeg moom. dépense tënam. Mm-hmm. te jamono ji bari na ñuy joxe dépense te ci man lañ ko yaakaaree. te nee na ci kàkkatar nga ko jaareeg moom. da ngay tudd turam man sama lépp day leer. waaw El Hadj Guèye xam naa ni ngeen demee yaag moom. waaw yaa tudd turam nag tudd ma ko. <laughs> ba koy liggéey bañ koy liggéey. waaw maanaam nda eh, ndakaaru. Mm-hmm. appartement ba mu fa amoon fay lu yees ko daan jafe. Mm-hmm. keroog ba ma naan ko tabdiiru kàkkataar gii ñuy liggéey. waaw buñ ci noppee ñeent fukki fan barab ba nga dëkk. luye ko su dee jaay bu la neexee jënd ko ay ay ay léeb ak lippoon la ko jàppe woon mm-hmm. maanaam man yëmut sax maanaam ñi jàpp ne xam-xam amut waaw weddi xam-xam waaw di fa wee ñaan yàlla defe ne ñaan yàlla du métier mm-hmm. ñooñu si seen jëm bopp laa ne man dañoo am ak dama am ak ñoom problème eh? waaw sama borom mi bind asamaan si tàllal suuf si allahu akbar yàlla ba mu bindee kawnu bi ba tey jii mm-hmm. jant bi saa booree fenk dana fenk saa bu waree so dana so mhm. saa su nawetee dana tooy xib mhm. saa su nooree dana wow koŋ ndeysaan li nga xam ne bët gisu ko waaw xam nga jëm yi sama borom kenn gisu ko dañ koo gëm ci xëy bu ëllëgee ne yóomi noonu xëy bi mhm. noonu la fi saxee mayuk sama borom mi ngi fi senegal mooy deux deuxième réew mi gën a mystique ci Afrique soowu jant bu la neexee man ngaa wax ne mooy quatrième réew waaw mi gën a mystique ci addina bi gannaaw Israël waaw ak fi nga xam ne moom mooy Bénin waaw dégg nga wax ji bu baax. waaw. troisième position sax moom nga koy jox. waaw parce que ñu bari sax dëppoo nañ ci ne Sénégal moo gën a mystique fi nga xam ne moom mooy Guinée Bissau. Mm-hmm. Guinée rek xam-xam yi fa nekk. waaw. ca ah Guinée nga ko de. ca Balantee. waaw. yéen wolof yéen a wax man manooje wala ñun wolof yi. Mm-hmm. ñoom ay balante la wax. Mm-hmm. xam-xam yooyu yëpp dama koo raafal. waaw ñëw toog. dama ne maanaam képp kuy weddi xam-xam. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla nattu ba mu dajeeg man laa ilaha sëñ bi lu ma ñor ci wàllu nopp ndax dama ci da nga amul morom moo tax ma bëgg a insister ci nopp laaj naa la ko léegi nga fël ko mais dafa mel ni sawaroo ci te nopp yor nga ci bunt yoo xamante ni ñu bëri bañ ma daan bañ ma doon kalaame ci nopp fii laa leen yebal ñu am résultat nopp day ma ci jëflanteel ñaari baat yi laa lay laaj mm-hmm. ndax noppi nga waaw kay boo nee maa waaw damay laaj ndax pare nga waaw boo nee maa waaw dama naan la nangam nga may jox. man képp ku ñëw ci man di ma ñaan loo ndax jaral na la. képp ku man du ma man ñaan yàlla duma ma ko waxal. képp ku ñëw ci man di ma ñaan loo xaalis laa lay laaj. Ah. xam-xam koo koy jox da ko cay sonal. li ma jàng dara lañ ma ci mayut. déedéet. fi mu ne nii xeetu tappale geeg naxaate gi ni mu amee ci ñaan yàlla gi noon la amee ci sayxu yi jàngale ñaan yàlla ba pare mën naa laa wax ne la pour xamal la ne la xam-xam jafe na. téeméeri sëriñ yu ma mas a dem ci ñoom di ca ñaanlu ñetti sëriñ wala ñeent ñoo ci xam ñoo ci xam la wax hmm? kon nag mënumaa da ci xam-xam boobu képp ku ñëw di ma noobloo ma ne la ñeme nga nga ne ma waaw ma ne la pare nga nga ne ma waaw hmm. ma ne la nàngam nga may jox nga ne ma mën naa la koo jox du ma jël avance du ma dellu gannaaw déedéet du ma ci jéggéeg nit ñetti fan képp koo xam ne la ma ci wax ak yow hmm. gisoo ko dellu si na dellu si ci sa télé bi maa la jox ndigal na wax addina bépp ne neen man may woote woo mënuma ko dama ne la dama ne la li ma yor. waaw képp ku yor njëg ba soxla ko. waaw soriwut ak marchandise mi nekk ca bitig ba. Hmm. da ngay ñëw nit ki dama la damaa bëgg mu ne la nangam laa koy jaayee nga yëkkati ko nga yëkkati jox ko mu yëkkati jox la. Hmm. nopp wax nga ko léegi ci sa biir wax amuma ci moroom ñëw ma ci ko yàlla bind. Hmm. jëraluma jug ci sama saal bii dugg ci sama néegu bopp bii nopp jëraluma ko. àgg naa ci foo xam ne fii may waxee du ma ca laaj nit turam du yaayam. la ilaha illallah lu yónnee ma fotoom ak sa foto képp photo li ma ci liggéeyee juróom-ñeenti baat la ay làkki sara sarayaan la yoo xamante ne ne su ma ko waxoon léegi fii xar loolu xëjut ci ci ci ci ci sax nopp doomu aadama mm-hmm. dama la bëgg wax ne la waaw xam-xam daa am lu wér nga wax moo tax gars yi di ko weddi dañ mm-hmm. ma moytu sëñ bi samp bi samp bi kat li tax ma tudd ko tey mboq na ci li nga xamante ni moo waral sa ñàkk génn lu bari li mm-hmm. ñu bëri nee nañ doo jëflanteek ku tuuti ndax kilifa yi ngay jëflanteel image boo ñu ci amee ndigal mën nañ koo jëf mën nañ koo génnee mm. kilifa yu bëri yoo xamante ni samp nga leen ci gannaaw yàlla ñu wéeru ci yow te ñii ay DG lañ ñii yor entreprise ñii ba ngay xamante ak ñoom sori na looloo tax ñu bëri nag xaw commencé laa ragal ne doo jël doo jël ku ndaw déedéet danaa jàmm yàlla sax ci ci ci ci doomu aadama yi waaye li may digal ñëpp mooy mm. képp koy dem ci sëriñ di ko ñaan waaw na fekk sëriñ ba moom mu tane la man gëw ma dem ci nit mu lay ñaanal xaalis sama moom amul xaalis dëgg la man gëw ma loolu man jotaay bi nag du dul jotaayu matériel moo tax yu bari duñ ko wane wala ñu ciy dugg mhm. waaye ñi ñu xam te yàgg jëflante ak ñun xam nañ suñ taxawaay ak mhm. suñ suñ toogaay lu mu waaw maa ngi lay waatal ci màggug yàlla ne la ay million mhm. nit dana ko takk di ma wër te du xam fu may fekk ci sama daara yi xam-xam ci jëmmi boppam laa la bëgg a wax ne dafa am samp gii ngay wax képp ku ma koy liggéeyal aw fas moo di weexalam wala nga ñëw fii ci daara ji wala nga ñëw fii ci daara ji am fi lu mag atum yàlla mm-hmm. wala juróom benn weer mm-hmm. dinu dinu liggéeyal mm-hmm. wala nga doon koo xamante ne danga maa war a dond sama doom wala sama jabar bu dul ñett yii bu dul ñett yii waaw lañ ma waxoon mooy bul bul bul liggéey mukk li wér te wóor bi mooy. waaw képp ku ma ko defal. Mm-hmm. samp gi. bis ba ma la ko defalee bis ba. waaw nga yëg ne defal naa la ko. boo toogee ayug bis. Mm-hmm. te buntu boo mës a gis ci sa àddina fee fee ñëwu la. Mm-hmm. sama course gi dagg ko lay def. wa rabbul kaxbati xam-xam daa am. gone yi di seet naan ku weex kaak ku ñuul geeg ku gàtt ka ah. luy loolu nit ki daa dikk ne la seetal ma ah waaw da nga ko war a wax ci boppam loo xamante ne ne mm-hmm. waxoon bu yegg ne ab sëriñ li feek waaw nit ba yeggal mu ne ko xanaa ab dëmm nga tam ko maanaam mën a gut a seet mu seetal nit ba noppi nit ki ne ko xanaa dëmm nga xew na fii xew na fii de fii de loolu xew na <laughs> ilaaha illallaah ndeysaan sëñ Mokhtar Sylla sëñ bi sëñ bi su ma neexee ne daa am lu ma jaaxal mooy ñett ñeent ba juróomi weer a ngi ñu doon sàkku jotaay bi gannaaw ba ñu ak taalibe boolee ak yow ñu jëflante woon jëflante wu rafet kooku ñu boole woon ak yow te nga jëflante woon ak moom it moo ñu waxaat ni nañ la dàq tey ci bésu gàmm gi premier jour weeru gàmm ne luñ la ñaan mën nañ ko cee am ci mbaaxu yàlla lan moo waral nga taamu bés bi nii pour génn ci gannaaw ba nga toogee nag lu yàgg génnoo. waaw man sama digg yonent bi dafa leer. ndeysaan. moom lañu ma tuddee. Mm-hmm. bu weeru gàmmu xësee teru it. Mm-hmm. ci kaw bëgg gi ma bëgg yonent salaatam lu ma waaye ñaan ma may la ko. waaye internet moom génn ci maanaam gëj ci. waaw. maanaam mooy sama programme ndax liggéey yu ñu nekk jamono ji dafa àndut ak wax. ndeysaan. ñu baree bari fi mu toll nii may waxee yow nii léegi lañ tàmbaliwaat liggéey ba waaye diir bu yàggan nit ñi boo xam ne gone yi ci daara ñooy liggéey. Mm-hmm. ndax dama wax ne man sëñ Lamine ay Ahmadou Makhtar yu bari danañ danañ euh, maa ngi liggéey ay Ahmadou li na ci man. ndeysaan dama ko bëgg a def ci ay nit. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dimbali jaam yàlla yi. macha parce que nit ñi bëgg nañ seen aajo faju waaye ñu bari xamuñu fa xam-xam féete fi mais sëñ bi am na loo xamante ni lu lu ajo diis diis bu la neexee teg ko ci ndongo yi ndongo yi faj ko saafara ko mais am na ajo boo xamante ni nee nga yow yaa koy fajal sa bopp yaa koy téel sa bopp muy wàllu néew kàttan mm-hmm. sujet bi moo mel ni moo demee noonu wala li muy laaj moo jafe wala lan moo tax néew kattan nga ni yow dong yaa ci doyal sa bopp te doo doo ko traité da koy faj ba mu waaw li tax ma koy noonu mooy damaa xam coono bi nekk ci néew kàttan góor gu mu dal. Mhm. këram daal di tas. allahu akbar ab sagam daal di sàggi ko suturaam daal di daal di daal ko. Ah. te àddina. waaw ñaari bànneex moo fi am. Mhm. Mhm. yi nga xam ne bakkan da koy bànneexoo. ruux ci jaamu yàlla ak ci sàbbal yàlla lay bànneexoo. waaye jëmmi bakk doomu aadama di nafsu. saxawaat yi ko sunu borom bindee la ca jiitu mooy jigéen. zuyina linnaasi xubbu shahawaati minan nisaa'i la jiital waaw néew kattan sëñ Mouhamadou Lamine képp koo xam ne dal na la waaw sama borom womat la ba xandi ci noonu wala nga déggante ci ak noonu ma ci kàttanu yàlla waaw ndax ki aajoom nër tafaju it lu mu bëgg-bëgg a jëflanteeg man du ko man loolu dama koy wax juboo na ma ak sama borom ci ko aajoom nër tafaju du fi ñëw nit mën naa ñëw ba yegg si te fekk waruma koo ñaanal bu ko sama xalima bañalee wala sama kurus bañal ko waaw dama koy bàyyi mu dem waaw loolu it euh, bëggoon nañ la ko laaj li tax nit ñëw fii nga seetal ko ba jommal ko ba mu yaakaar ni ah dal na ci hmm. nga laggal ko feneen ne ko duma sa sëriñ loolu lu loolu nan nga ko mën a xamee nit ki nga seetal ko ba gis ko boo ko gisul soo sax ñu ni waaw mais nga gis ko gis aajoom gis li koy faj yëpp ngeen ko duma sa sëriñ wallaahi raxas bi ni nga ko waxee jamono bis bu set daanaka ma dund lu mel noonu waaw man loolu man am na ñoo xam ne da nga leen di yebal ci keneen mm-hmm. ñëpp ci njaboot gi la doon am na yoo xam ba nga leen di wax carrément ni mënuma laa ñaanal ñu dem. mais ñàkk bëgg ñaanal nit ki la wala loolu nu mu demee da wala gis ni aajoom du fajoo ci yow. waaw loolu yëpp day fekk déggoo amul sama digg ak moom rek. ndax ki ma xool. waaw xam ne aajoom du faju mhm. am na ci jàmm kooku du ma jéem ci moom dara. Ah. waaw ki nga xam ne it la muy wut da caa war a sonn. Mhm. sans borom dogal na mu war a caa sonn. waaw te bu dikkee ci noonu lépp daal di jàppandi kooku dañuy bëgg coono ba mu ci war daj mu daj ko ca ba pare mhm. man boo bëggee dégg-dëgg waaw daanaka ñaan yàlla fi mu ne ñenn képp laa soxla mooy mooy ñi dem ba jàpp ne ñaan daa amatul ñi nga xam ne jàpp nañ ne sëriñ bu man mën a faj aajo amatul mhm. boo waxee ñu ne la gaa yi ñoo yem mhm. seen bubb yu rëy yi dañuy naxaate dañuy dóor dañuy maa ngi leen di wax ni leen billaahi lisi laa ilaaha wa xam-xam am na sirru ba ba taxoon yonent yàlla Suleymaan toog ca Qudsu ndeysaan yilif ko noot waa misra mm-hmm. noot Palestine mm-hmm. noot Afghanistan mm-hmm. Pakistan Hind euh, fépp sirru boobu adduna bépp ngelaw li fa saxar naa lahu tajri bi amrihi ruxaan xaytu asaaba saytaane yi wa shayatina kulla bannaain wa wa axarina muqarrina fi l asfaat géej gi jéeri gi rab yi waaw sirru ba mu leen notee woon ba tey jii mi ngi fi. ndax lépp ca jaaroom la ko sama boroom defoon. Mm-hmm. sekkare jaaro boobee mu ngi fi. Mm-hmm. te billaahi li fi laa ilaha illa sama jaaro. képp ma jox xam nga ne at mi at mi yëpp. waaw ñetti jaaro laa ciy liggéey. at mi un an soixante trois cent soixante cinq jours nga joxe ci sañuma liggéey ci at mi lu ëpp ñetti jaaro. liggéey bi métti wala lan moo tax. liggéey bi diis na jaaro yi am na doole. te buñ doon def ku ko bëgguñu ñu liggéeyal ko ko. Mhm. kon kon mbir kon kon mbiri ñëpp jàpp ni mbiri kenn dootu dëgg te sama borom dogalul dogalul loolu ci ñëpp. ndeysaan. waaw. laa ilaha illa li tax nag mu naqaree jëflanteel lenn la mooy ku aajoom nar ta doo jëflanteeg moom lenn moo tax mu naqaree jëflanteel mooy li mu yor mbiri maam yi dëgg la waaye secret dëgg la yor muy loo xamante ni kenn mënu koo am. wala sax ñu bëri mënuñu koo am looloo waral xat-xat gi kërti kërti gi tëb di dal beeg sëñ bi coow li nag bëri na ndax ku nekk ci kanam lañuy la moo nekkoon ci kanam coow li bëri ñu naan day fétiche daf ci boole ay mbiri jinne dafay foo ko fekk day sol mbaxana mu xonq foo ko fekk day day day laal ay mbiri jinne day yor looloo tax daal sëñ bi coow li bëri woon ci yow ci la ñuy jàll ndax am na loo xamante ni sëñ bi da ko waxoon nga ni Modou Lo Ama bañ ko njëkkee jàpp nga ni fii pare ci làmb ji làmb ji du am. Mhm. bi mbir mi tasee ñëpp daw wut la nga daw làqatu. xam xam xam nga yow waxoon naa la ne la. waaw gis naa ci ko bu jéggeem ndox kenn mënta tee ñu daan ko euh, man nag. Uh-huh. dafa am foofu dama bëgg wax ji yegg fa ndax li tax mooy. waaw man dama mënt junj. man dama isaara de man lu neen nam demee laa cay waxee. waaw lii may waxee yooyu yow na na wër àddina na ko ñëpp dégg. Mm-hmm. ku yàlla bind mënut mënut ci man dara li li ma bëgg a wax na ma ko bëgg a waxee noonu laa koy waxee waaw man ni may gisee nii dara tënku ma déedéet ku am xurriya laa ku am liberté ci sama bopp mm-hmm. man bu ma nit doon ñaanloo ma xool ko neexuma wala mu ñëw indaale ñàkki teggin sax dama naan ko demal ñaan lu ma la la ilaha illallah xam-xam dafa riis waaw waaw nit waru ko am ba pare di dabu kenn déedéet wala muy topp ci ginnaaw kenn mm-hmm. xam nga waxoon naa la ñaari mbir gis naa ci koo xam ne bu jéggee ndox mi dem Gàmbi kenn mënu ko mënu ko mënu koo tee daan ba joxoon digg joxoon ko diggal ci ne na jël euh, vol. waaw bu mënta ñàkk. waaw waaye gis naa koo xam ne biteel ba mu yor. Mm-hmm. biteel ba damaa xam góor ko liggéey. laa ilaaha ci ñaari mbir gis naa koo xam biteel ba mu yor. waaw barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan lañ ko liggéey yuutu néew bokk na ca. Mm-hmm. at yu bari yu ma mënta leeral. kon làmb ji dem na ba yegg bés bu ko sottee kam yi kam jàkk kam kam war a dajeel waaw menn mbindeef mu mu mën a tee mu daan ko amut waaw moo tax maa ngi wax kenn ci ñaari mbër yooyu ne ko waaw bu dee génn sax na wut ñu ko escorté daal ko ndax bu ko butil bi laalee man nañ koo sax agressé sax sotti ko ko man lii koy wax nag maa gën a xam ne lii may wax waaw risque la waaw waaye bu dee ci man du risque waaw man man ragaluma de. déedéet man ah. ni man ni may gisee nii. ñu xam la sama yitte yëpp xaaju guddi laa koy dox. xam nañ loolu sama yitte yëpp te fii ku dut ku dut donge yi ne ci daara ji du fi daagu man awma gardien. déedéet nanguwuma ko. gis nga ñoo xam ne dama bay bañ. Mhm. lii mbir tey mbir mooy xam-xam daa am. waaw. Sénégal xam-xam dëkku fii dafay jéggaani fii. ay gone jug yoo xam ne seenum jàng yëggut ñu fekk ca téere maam yooyu ñu nekk ku bind nangam boole ko nangam mhm. ñu sukkandiku ci yooyu defe ne yooyu mooy xam-xam fekk xam-xam gën naa xóot xóot loolu xam-xam dëgg mhm. sax diisu ko bind ci ay këyit mais sëñ bi bi làmb ji taxawee dañ ni yow yaa pare ngir làmb ji taxaw ndax nee woon nga fii rek pare woo ci benn mbër mi mhm. làmb ji du am est-ce que du yow yaa pare wala lan moo xew waaw ba ah, daa yoo xam ne lu baree bari lay xuus pour man caa yegg ndeysaan te loolu daanaka du ko jar waaye mën naa la wax ne la bari na lu ma ci liggéey loo xam ne ci ay bant képp laa ko liggéey ay bant bant wallaay bu ma la ko bu ma la joxoon bant yi nii nga téye ko sax da nga naan lii te te te loolu yëmut sax ci mbirum lépp lu ma bëgg amal ba ci fi ne nit ku ñu waroon a tëj kaso waaw wala ñu àtte ko ba tëj ko ba bari sax bu ma neexee génn ko ci génn ko ci ay bant waaw yu yu kii laay wax nii même maanaam yooyu nit mën na laa woo fii sax nekk bi dim réew ne la police yi sama buntu kër di ma jël si am na ñu ma dundal lu mel noonu peut-être mën naa vidéo mën naa dem ba yegg ci ñoom waaw mais dañuy génn sëñ sëñ sëñ kii euh, sëñ sëñ sëñ Mamadou waaw xam-xam daa am laa la wax mais sëñ bi man ma mën naa laa seedeel lenn wax lu ñu wagul yaa ci toog jamono ji waaw maanaam Israël mhm. xam-xam képp la notee àddina te gis nga ni mu tuutee as réew la soo xam ne mhm. la fa yeewoo ñu néew la. waaw waaye États-Unis yëbbu ko Chine yëbbu ko. Corée yëbbuñu ko Europe yëbbu ko. gis nga mystique. mooy doxal adduna bi Sénégal dañ ko jàppee affaire aada ak cosaan waaye demal Maroc ay nit a nga fa ñoo xam ne ñaan nañ yàlla ba ubbi ay seen yoo xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre ci affaire ñaan yàlla la ñuy wax te man loolu dama ko yooyu yëpp dañ koo xam. Mm-hmm. fii may waxee yow nii nii. Mm-hmm. xam-xam daal sëñ Mouhamadou Amine. dafa dafa yaatu dafa yaatu dafa mm-hmm. yaatu dafa yaatu. ah ci yaatuwaayu xam boobu dañuy dikk nag ci lenn. muy langu politique gi amadu Ba Benno Bokk Yaakaar Macky Sall eh, Antoine ak ñoom ñëpp ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ak seen coow sëñ bi waaw fi mu ne foofu mu ne waxoon naa leen bu yàgg ne leen Amadou Ba Macky sàll na ko tànn waaw loolu sax yaakaar naa du du privé mi ngi woon ci wax ji mi ngi woon ci ci ci internet bi waaw <coughs> euh, bu ko defee mm-hmm. am na najmu raïs. maanaam. biddiwu kilifa. moom Adama Amadou Ba. waaw biddiwam moom. Mhm. mën a nekk président mais espoir am baaxut. Hmm? waaw jëmmi après jëm boppam nag gis naa fa ñeneen ñoo xam ne dëggantaan am nañ biddiwu mën a doon président. biir bennoo waaw biir biir benn biir bennoo. am na ci ñu ñu seen biddiw fenk jamono ji. waaw bu dee opposition bi nag fi mu ne nii. waaw kenn képp laa ci gis koo xam ne maanaam moom. dëggantaan nag dëggantaan. waaw am na biddiw mën a doon kii moom. président président waaye nag. Mhm. Euh, du ko wax ndax gaa yi mën nañoo daal di sóobu ci teel koo gàllankoor sax. opposition bi oh, kenn nga ci gis. kenn laa ci gis. ak li muy yaatu yaatu yaatu. Mm. Barthélémy Dias ak. maanaam mm. euh, ah, Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ak Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall Idrissa Seck. Mm. Pape Djibril Fall ñoom ñëpp nga kenn nga ci gis. te te te kenn ci ñi nga wax ni <laughs> sëñ bi yaa may jombal de mais tey laa juuf ak ñu ngi ci biir de. barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci am biddiw maa doon président te du kenn ci ñii nga wax nii. ay ay biram ay yooyu yëpp <laughs> xam nga xam-xam. Uh-huh. moo tax li ma bëggoon mooy ñu gën a gëstu te gën a jàngi. sëñ bi foofu faaw nga tegaat sa loxo de. opposition bi li ñuy yaatu yaatu gis nga ni kenn moo ci mën a doon présidence 2024 wa rabbul kaxbati kenn na ci am Sonko moom. Mm-hmm. waxoon naa leen bu yàgg ci biddiwu sarataan bi mu nekk. ay ni mu ëppee doole mbirum Macky Sall a moom waaye gis nga Sonko. Mhm. bu ma sañoon dama ci wax parce que teeloon na maax loo xam ne buñ ci jaaroon duñ ko tëj. waaw. waaye dañ koo sàggane. waaw. te Sonko def na tuuti. Mhm. dana dana génn sax ci xelu Sénégalais yi. allahu akbar riiram dana fay. nit ñi mhm. duñ ko def bu dee mystiquement. sëriñ si wax nañ ba tàyyi ne am na kaaraange. gone yi naan ko ko songu sànq mën na leen amul kaaraange waaye yàlla xam na ne kaaraange gis nga mbubbam moom yi ñu jëloon ca yoonam boobee. ba mu jugee fee nuñ koy waxeeti. ba mu doon dem tribunal. Mhm. wallaay liñ ko def lépp ci mbummi lañ ko def. Mhm. yàlla xam na ko. Ousmane sunk li ko def ba mën koo jàpp barricade këram cinquante cinq jours sénégalais ne miig ñu jàpp ko tëj kaso sénégalais ne miig. waaw mbir ni mu yombee nii mbir yi ni mu yombee. waaw. gone yi taxaw fee naan Sonko namm nañ la ma na leen yéen dañuy ne waxoon nañ leen ko bu yàgg xam nga Sénégal. waxoon nañ ko ci ci wadd deux mille deux mille douze mhm. ñu xoolee ba la ca xew lépp xew ca mhm. deux mille treize xaw ma deux mille quatorze bi mu ñëwaatee fii ñoo ko doon kar ca aéroport ba naan ko maam namm nañ leen ma ne dañu ñàkk jom Sénégalais daal dafa am dafa am yoo xam du du yëfu góor gis nga gis nga mhm. nit ñi nañ dëggal seen bopp waaw xam liñ bëgg xam liñ bëgg biir APR ci jëmmi boppam nag waaw APR opposition beeg ñëpp a ci yem man daal xam naa juróomi mbir yoo xamante ne ku ko ku ko def doon daa juróomi mbir waaw ku ma sëñ bi ko mboolem ñiy wut waaw ku ma ci njëkk woo man laa biré ko fii ne nii may wax yow nii danaa uh-huh. danaa la wax ne la fi mu ne waajur Antoine waaw fii ne ku ku ku ku ku ku taxawaayam baax la ci guddi yi may waxe yow nii doon dana naqaree wax Sénégal yi nag ndax ci gis-gis nii waaw day nuru ne senegal yi dañ koo mere wala yu mel noonu waaye fekk na déedéet Antoine Diome men men mi nga xam ne coow ko topp jamono yi nga ni ku neex a defar ay mbir am na am na biddiw bu baax am na biddiw bu baax a baax a baax moom moom ci jëmmi boppam mais dama dégg ñu ni Macky Sall parce que parce que Antoine ñaan la am ñaan waaw daa am ginnaaw maanaam maanaam ay nit yàlla xaqan dañ koy ñaanal hmm? ànd ak yi ñu ci waxee yëpp li ci aju ci mbirum politique ak yooyu nag sama yoon nekku ci waaye dëggantaan am na ñaanta espoir am baax na mais dañ ni dañ ni Macky Sall pareegul ci nguur gi jamono ji Macky moom jeexal na. ah loolu moom mooy dëkk jeexal na. bu jeexalul nu muy def am na nit yàlla ku baax koo xam ne faatu na ci at yële ci gannaaw. Mm-hmm. tarixa ba mu bokkoon ma nga fa toog juróom-ñaari at. ndeysaan yu teg juróom-ñaari weer. Mm-hmm. sama borom daay jëloon mbiram. lëkkale ko ak mbirum Macky Sall. Ah. fa mbiram yem fa la mbirum Macky Sall yemoon. gannaaw yàlla baatin. waaw. baatin. waaw moo ko gunge ba mu yegg si fii mu yegg si. moom Macky Sall. waaw fii may waxee yooyu xanaa xam ne am na borom basiire yoo xam ne ba tey dañ naan la Macky faluwut. ndax lan. maanaam mbir ya nam mbir ya nam demee ca kaw. Mhm. xam nga Macky Sall daa gouverner mi fii ci fii. waaw Joe Biden gouverner ca États-Unis waaw Macron eh, gouverner ca kii. waaw mais gouvernement yooyu yëpp sax existé wu. sama borom daa gouverner moom. te gouvernement booba. waaw wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa mais foofa ba tey jii fi toll nii. waaw luy dëggalee Macky Sall président sax doo tëggu fa xanaa loolu xanaa loolu boo koy wax Sénégalais yi danañ danañ ree ba tas. <laughs> dinañ ree ba tas sëñ bi loolu loolu sëñ bi lu lu kawee ngay wax jamono ji. <laughs> cee te te mais. <laughs> am na xam-xam daa am xam na bu baax. mais daan nga faral di mm. def ay révélation mm. di ñu ko baaxee. ci mm. wax lu ñëwagul ndax sénégalais bu ñu demee ba gëm ni asraar am na bu ñu demee ba gëm ni ñaan yàlla am na bu ñu demee ba gëm ni sax gis lu dul ñëw am na sa jëmm ji wa tax ndax koo xamante bi mu dalee wax ba léegi kenn mosu koo vaar bi mu dalee wax ba léegi lu mu ñu wax heure bu ñu ci yeggee ne ah sëñ bi junju junjuñu woon sax waaye da koo waxoon lan ngay tëjee ci côté boobu xanaa wax ne sagub ñu bari dana sàggee ko maanaam waaw ci yi ñu jëm waaw soriwul dara surtout la suñu bari dana xàddee ko ay kilifa yu mag danañ faatu maa ngi jégalu nag bëgguma bëggumaa wax tiital kenn parce que man mbirum deeg yooyu di ci wax samay mbir waaw waaye Macky li ko fi defee li muy néew néew waaw du fi bàyyi mag moom solo maa man fi bàyyi ma mag mu jëm ci yàlla. sëñ <laughs> bi li nga wax yii bi ne de. dégg nga waaw. Euh, bu loolu yàlla suñu la mën daa am loo ma laajut dama bëgg nga laaj ma ci. mooy lan sëñ bi. maanaam <clears throat> ñi cancer ak ñi jabet. Eh waaw sëñ ak ñi AVC. rey ma <laughs> ah rey ma laa wax moom de laa bëggoon njëkkee. nasaraan bi xool leen. waaw ak docteur yi saa yëf. waaw ba ne leen mën mënatuñoo wér. waaw nañ leen indi ma faj leen. te li may wax nii gouvernement bu Sénégal. Mhm. ak ñi gouverne àddina ñëpp laay lancé appel ci loolu yàlla na sama message dox ba yegg si ci ñoom. fii may waxee yow nii. wa ida maritu fa huwa yashfini qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaun wa yashfi sudura qawmin muminina wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminina gis nga sëñ kii. Mhm. alquran. waaw. li ci yàlla wax lépp gëm nañ ko. dëgg la. maa farat naa fi kitaab min sayin. Mhm. mu jàll ca biiram docteur xool ko ba ne ko ñetti fan moo la fi dese bu ñëwee mën nañ ko faj te lañ koy fajee duñ ko bind ci ay xalima déedéet dañ koy ñaan ci ndox jox ko mu naan mu deñ fii nag néexu ta waxee déedéet waaye waaye waaye waaw maanaam fi mu toll li wértu wóor mooy mhm. fi mu ne ba ci xee xeeti xale yi nga xam ne dañoo mënta wax fi mu toll nii de sëñ bi loolu maa ciy seede waaw xale yi mënta wax moom bàkkee woon nañ la ko ndax est-ce que du looloo looloo looloo taxoon nga génnoon réew mi sax dem ci dem ci réew yi gën a sori. waaw ak xale yi nga xam ne xam nga wax naa ko fan yii ca gannaaw. waaw mbokk taalibe bi fi ñëw mën na leen. Mm. <clears throat> lan moo tax fekk booba bi ñuy fii ñëw dafa fay fekk benn xale bu nasaraan. Mm. xale bu nasaraan. Mm. xam ne daa mënta wax ñu indi ko fii. nekk fi waaw na leen lan moo tax. nasaraan su xonq curu mën a dëkk ca àll ba. waaw xam li ñuy liggéey. Mm-hmm. ñu mën a jël nit indi ko fi ngir ñu faj ko ñu dëkk réewum Sénégal gii mhm. paralysé di fi rey ay nit te paralysé fi mu toll nii tawati saytaane képp la amul maanaam day nañu ma fii ab malaat waaw ma ma ma am lu ma jàngi ci moom waaw turi barxóot yi ñaar fukki tur juróom-ñett yi di barxat yi hin kari yi tat lii hin mhm. ba mhm. mu jeex bi ma ko jàngee jinne ji daa yëngu ne ma maa ko dugg wallaahi xam nga nag sëñ bi li tax ñu lay ñu lay boole jinne yaa koy def nag yow tamit waaw ma ko lu tax ma maa sababu du xooli ka fii xadal jasad lan mooy sabab bés nga dugg ci yaram ak ki mu ne wax xat xan la yee fil xammaam parce que dafa dugg na doog man ci wanag génnal dinaa génn génnal mooy dinaa ma ne ko acca bismillah mm-hmm. waaw daal di def ci moom ya may def rek mu daal di jooy sa bàyyi ma dinaa génn li may wax nii nag lu tàng jër la waaw lu wax lu métti képp ku jug sóobu ko eh? te xam-xam bu wér jër ko fukki xam-xam ak ñaar dana daje ci nit ki ngir mu man loolu borom waxaayatul insaan minal jinni wa seytaan mm-hmm. bind na ci téere bu am solo mm-hmm. téere boobu damaa ñor ñor goo xamante ne ne moo tax traduire naa ko ci wolof waaw dinañ dinañ ci leeral la insha allah waaye téere bii nga xam ne maa ngi koy bind ci lasraar mm-hmm. jox ma kii ana seew naa jox ma sama téere boobu bismillah sëñ bi téere bi yaa ko bindal sa bopp nii ba mu fees ba téere bi waaw teggi tuumay ñaan yàlla te yaa ko bind maa ko bind foowee gone yi di foowee ñaan yàlla gi ak yàq gi ñu koy yàq tam doonoon ak dëgg mag ñi daan ci fal dimb ak di ci folli waaw loolu dama ko dama ko fi doon loolu yaakaar loolu dañ ko bàyyi métier mi di lii lii dëgg lu wér yàlla sax dayeef na ko ci amee laa la wax ñun li ñu nekk moo gën a sax garaaw li docteur yi nekk parce que ñoom pajum saayir la ñuy faj mais lii pajum baytin la te gis nga baytin sax moo ëpp doole saayir donte ne dañ leen a war a boole moo tax bu ma jëlee engagement ne la ña tawat tawat ju docteur mën ta faj waaw nañ ñëw ma faj leen la ilaha illallah da ngay xam ne maanaam loolu téere bi damaa bëgg ñu defal ko émission boppam ci jëmmi boppam loolu mooy am nag damaa bëgg ñu defal ko jotaayu boppam ngeen ko waneen yoon woo xam ne mhm. moo leen di tax a jóg télé bi télé yi gën a mag ci réew mi mhm. dinañ fa yóbbu téere bi ndax incha allah ndax téere bi nekk na téere boo xamante ni réew mi ku ne war na koo mën a am mhm. eh, ci teggi tuumay ñaan yàlla teggi tuumay ñaan yàlla teggi tuumay ñaan yàlla nit ñi dañoo dañoo tuumal ñaan yàlla léegi waaw dem nañ ba bu ñu gisee ko sol mbubbam kaalaw wax sax dañ koy jàppee yambar moo xam ne daa hmm. nanguti liggéey rek moo tax te fekk te fekk ne métier bi <laughs> te fekk ne te fekk ne te fekk ne wallaay yonente yi sax loolu leen yàlla bàyyiwoon ci kaw foofu yàlla mënta bind aadama indi ko ci kaw nu bi wax ne waa la ma aadama asmaakullaa maa ko xamal tur yi garab gu nekk xamal ko nam ko tudd xamal ko nañ cay fajoo ci wàllu médecine xamal ko nañ cay fajoo ci wàllu mystique njanaaw yi sama boroom def ci fi mu ne asraaru njanaaw ci jën boppam dafa am mhm. ci ay mbir yu gàtt yoo xam yu woyof lay doon mhm. yoo xam ne su ma ko doon leeral damay wax ne ah. xam-xam sori jigee gi mu jigee nit ñi mettil ko naan la damay dem fee def naa dama ko def xam nga ko fi mu toll nii mhm. am na yooyu damaa bañ nit ñi di ci lor nii waaye ba ma ko joxe woon mu ne nii ba ci mbirum ay jinne yooyu nga doon wax ak yooyu fi mu waaw ki bëgg di gis ay mbir fi mu toll uh-huh. ku ko def te sa bopp attanu ko nag da ngay dof demal fekk aw fas sëñ bi ah demal fekk aw fas rek boo xam ne am na laas nga jël laaf laas nga tuufaayoo ko lépp ngay gis. lépp ki nga xam ne ay affaire yi fa bëgg ay affaire kenn yooyu. Hmm. wala nga dem wut bopp mu saa njëbbal rek nga def ko cuuraay suuroo ko. bopp bu sa bu dikkee te sa te sa bopp dëgëroon da ngay def fi mu nii ba ci nit ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe nit bëgg ko tëj wala bëgg ko yëpp kaso wala naa nga mag sàngam ganaar yi dàq jàpp yi ñuy jëlee ci àll ba di leen indi fii di leen tënk. waaw nga am buum giñ ko tënkee rek. naa ko yemale foofu. il est parce que parce que parce que Sénégal am na maanaam dama la bëgg wax ne la. fi ne ba ci mbirum noob mii ñu doon wax ni léegi képp fi ñu toll nii. Mm-hmm. bu dee ki xam ne man nga ko jox mu lekk wala man nga ko jox mu naan. waaw. maanaam fi ne kooku bu wootee ñu jëruñu koy ñaanal ñu liñ koy wax. waaw bu nu neexee. waaw dañ ko koy wax mu defal ko boppam. te billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ab jullit laa te bëggumaa dem sawara waaw lii ma lay wax nii kiraaman kaatibiin yi laa ci jël seere wa rabbul kaxbati mhm. boo ko xëyee def nit balaa jant so mu topp la nu raw naqaj toppee borom oh bi fii la ñuy émission bi ndax dama naan daj dëpp la tey tey dalal naa ku ne dama naan kàng fóore gi laa dajal tey nii lañ ma ko yàgg a waxee suñu première émission nii la woon kon bu ñu defee émission man ci sama jëmmi bopp damay santi ni xam-xam génn na te duma ma doyal te li muy wax te caméra du tàq moo gën a yéeme moo gën a garaaw bu caméra yi tàqee li muy wax moo tax fii la ñuy jaar jaajëfal leen itam jox leen dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf